fekkente ne jàpp nañ ne am na ñu mer peut-être wala am na lu wàññeeku ci électorat wu Pastef mën nañu gëm ne am nañu benn soutien soutien de taille Ousin moom mooy ki nga xam moo fi nekkoon député di Mame Diarra Fam moom nag daal dinay woote ay ñoñom ak ñi ànd ak moom ngir rek ñu voteel parti bi di Pastef li ni mel nag gannaaw rek mu ngi ko xamle moom Mame Diarra Fam euh, ca ba fi nga xamante ne moom mooy Qatar daal di bind ab bataaxal bu yaa jàpp ne euh, waxtaan nag ñenn ñu bokk ci PDS ak ñenn ñi nga xamante ne bokk nañ ci mouvement am ngir ñu tànn ban parti la ñu war mën a dooleel ci élection législative yi ñu dëkkmal toll nañ nag ci ñamu waxtaanal euh, fanweer secteur yu nekkee ci PDS ak bureau bu section PDS ginnaaw raay nord Mame Diarra Fam nag daal di jël position ci lettre ba mu génnee daal di koy duppee déclaration de Dubaï moom nag mu ngi invité membre yi nga xam te bokk nañ ci mouvement alternative euh, future di MAF ngir euh, ñi nekkee ci biir réew mi ak ca bitim réew ngir ñu voter ci bësu élection yi parti bii di Pastef ndax kat jàpp na ne ci dynamique bi nga xamante ne ñoom nekk nañ ci bi ñu faloog léegi il faut ñu yokk leen doole waaye jox leen euh, majorité foofu la ci assemblée nationale Euh, Ousin. Mhm. choix wu Maam Jaara Fam noo koy jàngatee yow xam nga ko bu baax. Mhm. <laughs> sama yaay la. Mhm. <laughs> maa ngi koy nuyu passage Maam Jaara Fam. Euh, bon man nag je suis en phase euh, li mu wax parce que bon Maam Jaara Fam lan moo tax mu mu mu mu mu jóge sax j'allais dire li nga xamante ni moom mooy PDS parce que dafa d'accordul ci PDS di ànd ak APR parce que déjà APR mën nañ jàpp ni président Macky Sall ak nguuram mën nañ jàpp ni moom. détenu politique la ndax moom xam nga tëjoon nañ ko ko fi kaso moom mënul hmm. euh, jàpp ni ñu euh, jub maanaam noonu noonu démb bu ñu nangoo seen pexe moo yu bëri et puis tant euh, les observateurs sax ak ñu bëri jàpp nañu ànd boobu c'est pas cohérent hmm. mais moom lu logique cohérence bi ma jàpp ni Mame Diarra Fam ànd na ak moom mooy par exemple moom lan la doon xeex en fait maanaam régime sortant bi la doon xeex donc mënoo xeex régime sortant ba pare après même pas six mois ou sept mois régime sortant nga ñëw di ko jàppale jàppale waat donc pour man contradiction bu bu bu bu bu doy waale en fait hmm. lii mu def nii rek la mën a def parce que mm, tey c'est vrai que investir wuñ ko ci benn liste mais par exemple tey buñ ko doon investir ci benn liste ci ci liste ban liste lañ koy investir par exemple Mame Diarra Fam mënoo jàpp ni ak xeex bi xëy na am na ci yenn côté ñoom bi ñu bëggee nga xamante ni ah, moom mooy ah, Karim Wade daal di bokk gis nga la coow la ci am ba yenn ci incompréhension amoon na si digganteem ak ah, ñooñu Pastef yi mais teewul Mame Diarra Fam loo ko mënta bañal bañal lu mu gàtt gàtt gàtt taxaw na Assemblée nationale quand même xeexal Pastef ci injustice bi nga xamante ni jàpp na ni yàgg nañ ko ko teg donc pour man li mu def ni rek la war a def en fait. Mm-hmm. bon c'est vrai que mënoon na toog neutre. sa bu toogoon neutre sa xëy na waxal ko day a yomb parce que dañ naan non dafa neutre parce que bëggul mais dès l'instant que neutralité wane wu ko. wane na hmm. ni moom dañuy xeex pour régime sortant bi jóge fi. te système bi fi nekkoon la ñu bëgg mu jóge fi tey bu ànd ak Ousmane Sonko wax ay ñooñam nañu topp Ousmane Sonko pour man euh, suite logique la rek euh, ci démarche bi nga xamante ni moom mooy Mame Diarra Fam. est-ce que jàpp aussi dafa teel a jël dafa yéex a jël décision boobu parce que ku xamoon ni mu taxawee ci combat bi ak ci côté Pastef ñu bëri jàppoon ne heure mais jàppoon ne dafa xaar peut-être ba PDS investir wuñ ko mu soog a jël boobu lépp décision. est-ce que yéexul non mais moom avant ñu koy investir sax avant moom déjà dafa dafa ba dafa dafa dafa dafa démissionné ci parti bi. Hmm. parce que moom comprendre parti bi pourquoi muy dem di ànd ak waa APR. moom ci loolu la bàyyee bon mën naa ne sax kenn dàq ko moom moo démissionné boppam ci parti bi. Euh, bon beneen côté bi aussi pourquoi demul ànd ak ñoom bon pour man comme da nga nekk ci parti aussi discipline de de parti wala soit da teel a bàyyi ànd ak ñoom jàpp naa ni PDS boo ko fàttalikoo ci dernière journée wala dernière euh, meeting bi nga xamante ni Bassirou Diomaye Faye mi ngi ko doon def foofu ca Mbour guddi googu je me rappelle très bien stade Caroline Faye de Mbour ci la PDS ñëwee sax yéega ci ko podium bi ah. donc ñoom sax tardivement lañu ñëw ànd ak nga xamante ni euh, euh, moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy Bassirou Diomaye Faye ndax ñoom seen candidat xam nga bokkul woon moo tax ñoom dernier moment dañoo ñëw ànd ak Ousmane Sonko kon ñoom accompagné nañ Bassirou Diomaye Faye ci lu ma jàpp pour euh, yéeg pour demam fi nga xamante ni moom mooy euh, jiite réew mi euh, c'est vrai que c'était un vendredi en dernier meeting parce que su ma juma élection yi vend élection yi dimanche la woon hmm. vendredi moo nekkoon dernière moom mi nekkoon meeting de clôture bi ci guddi googu noonu la ñu ñëwoon la ñu ñëw la ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy Pastef donc pour man Mame jaara Fam dafa continuer di nekk ci ci ci parti bi léegi parti boobu nag moo deful logique logique parti bi waroon def mooy gunge na Bassirou Diomaye Faye ba mu falu nañu ànd ak moom gouverner wala sinon ñu ñu jàppale ko beneen beneen mbir mi tamit sañ nañu quand même démarqué wu dem xëccoo ji élection législative pour am seen i député hmm. mais quant à ànd ak président Macky Sall loolu moom nekkul lu cohérent ci bët sénégalais yi hmm. loolu moo tax moom jaara faam nag fi ko àndul ak ñoom ci ci xalaat boobu noonu mu daal di demal boppam hmm. dem maanaam toog déglu leen et puis bàyyi sax la def parce que ni mu ko waxee maara day taali sax lu utiliser si début texam mhm. donc kon mu leeral na kon am na lu lu ko si lu ko si lu ko si yéem daal en fait mhm. Mhm. Euh, ñu gis aussi bi mu bi mu jëlee dogal boobu woona en tout cas ñi nga xam te ñoo dëkkee euh, Pikine ginnaaw raay ak euh, sénégalais yi nekk ca bitim réew rawatina fële ca Italie ñu daal di voté massivement ñeel parti bi di di Pastef ban soutien ban apport bu diis nga yaakaar ne war na ko mën a apporter Pastef député diaspora diaspora bee ko dugal hmm. xam nga maam jaara faam yi fàtte italien yi ñu doon làkk foofu ci hémicycle bi kon maam jaara faam bu woowee ita mbokk italien yi normal ay doomam ña nga foofu moom te yàgg na fa samay mën naa ni sax bu mu ëppul vingt ans teg na ko hmm. njabootam ñenn ñi foofu nga xamante ni moom mooy Italie donc diaspora bi am na lu mu fa liggéey te diaspora bi xam na ko donc et dafa coïncider aussi

Euh, boo xoolee bureau de vote yi ba ci centre vote moom euh, ci goxam foofu ca ginnaaw raay da hmm. ngay xam ni moom dak moo koy faral di gagné d'habitude euh, man jàpp naa ni jàpp naa ni Mame Diarra Fam war na wax daal en fait wax na li nga xamante ni moom mooy bon fi mu doon ñaawee wala ñenn yi doon gis ni mu wax noppi bi mu neutre nii day day malhonnête wala dara mooy mu toog neutre hmm. mais dès l'instant pare na parce que man intention moo ci ëpp solo xëy na parce que Pastef nekk na parti bi nga xamante jamono bii ku ko ku ko mu dem ku ko buuxul mu dem mhm. mais xëy communication moom moo ci am solo ñu ni diw day jàppale diw mais réellement réellement mën na bañ a poser trop trop parce que mhm. Ousmane Sonko bon loo si mënti wax wax la personne de Ousmane Sonko wala baat campagne jàppale leader yi ànd ak ñoom si terrain bi mhm. man loolu rek euh, poids la déjà pour euh, pour concurrent am yow sànq yaa ngi woon ci benn ci benn ci benn analyse bu am solo mu bëggoon nga poursuivre ko mooy choix Euh, yaa ngi koy expliquer rappeler tuuti historique bi mu tànn ne dafay jàppale Pastef ci élection présidentielle mais ñu ñëw ba ci législative mu bañ a jàppale Pastef est-ce que newul le fait que ñu joxe poste yi te gisuñ kenn ku bokk PDS koo xamante ne euh, nommé ko DG wala ministre wala conseiller. waaw mais xam nga Ousmane Sonko daf leen ko waxoon dama ñëwaat ci meeting bi li tax mu koy rappelé parce que boobu maa ngi foowoon quoi hmm. mooy. Saat Caroline Faye Moussa euh, Ousmane Sonko dernier dernier meeting bi la wax lu leer. mais également dafa waxoon ñi nga xam ñoo ñëwoon ci coalition bi par exemple euh, ñëpp daf leen wax ne ni leen parewuñu bu ñu faloo hmm. duñ fi nekk di xëccoo ay pos dañu bëgg defal suñu réew ànd ñu ànd boo xam ne dañuy nekk daan kii la ñuy lii wala kii fii amul lu ñuy séddoo Ousmane Sonko ni la ko wax ouvertement ay ñoom Mandiaye Cissé ay ñoom euh, ñoom Mayro hmm. ñu bëri ah si waa Pastef waa waa PDS ñu ngi toog ñu ngi toog si si kaw pëjom bi ñu ngi koy dégg quoi maanaam Ousmane Sonko te moment bi mu leen ko wax moment boobu sax dafa dafa opportun parce que hmm. dafa leen ko wax ci moment boo xamante ni c'est c'était à 72 exemple ñu ngi mu wax leen ko carrément ñu hmm. leen fii amul lu ñuy xëccoo poste suñu alliés yi ah, xamee leen ko noonu ñun amuñu lu ñu fiy xëccoo poste